Restez toujours informés sur SeneInfo xibaar yu wóor te ci bile jamono Restez toujours informés sur SeneInfo xibaar yu wóor la mburu bi yu wóor te doxale jamono dafay gëstu ba mu leer mu soog la ko jox moom xibaar yu wër te leer ci bile jamono Sene Info mu dikk amal ba tey ak sama naataango bii di buur si ne Coumba Ndoffène Diouf mu dikk ak yéen si ay yaatal xam naa dama koy bàyyi mu nuyoo ñu daal di tàmbali seen yor-yor Sene Info bu si asalaamaaleykum. salaam soxna soxna Sène maa ngi lay nuyu di leen siyaar bu baax a baax di nuyu suñu cadre bi Abdel di nuyu mbokk internet yi nga xam ne kon ñu ngi bàyyi xel ci suñu différentes plateformes yi di amaat mbégte bu baax rek kon di leen dégtal yor-yor Sene. jërëjëf Bour Sine si loolu tey ñu dikk ak internet ci 8 point. yi nga xam ne dinañ ko waxtaanee ci seen yor-yoru seen info bi si njëkk nag mooy démb gis nañu ay élèves ñu daal di wàcc ci terrain bi di daal di dem dox ba fay ci Walf di naan ne dañoo bëgg ñu dégg leen ndaxte ñu ngi réclamer à ce que ñu libéré seeni camarades yi nga xam ne jàpp nañ leen ci mbirum Ousmane Sonko ak kii Mame Mbaye Niang loolu yëpp dina ci ñëwaat si ay leeral si loolu tamit ñu ñëw si commissariat central bi nga xam ne téye nañ fa en garde à vue kii di Babacar Niang docteur Babacar Niang moom mi nga xam ne mooy borom suma assistance ginnaaw bi nga xamee ni. demoon nañ fa ginnaaw nga xamee ne kii di Ousmane Sonko woon na fa ñu di ko accusé tamit si ku mel ni euh, Doudou Wade su ma juumul tur bi noonu la moom nag ñu ngi koy tamit ne kooku di Doudou Wade da ko daal di négligé ba mu daal di ñàkk bakkanam loolu yëpp ñu ñu wax si ak ay leeral si loolu tamit ñu wax si commerçant yi nga xam ne ñu nga xam ne ne su lii di sucre daan na di nekk loo xam ne dafa ñàkk jamono jilee kii di Ousmane Lom nag moom tamit yëkkati si ay kàddu si loolu yëpp lu mu si jot a wax yëpp ñu si ñëwaat ñu yekkali ba tey ak kii di ak Raby Sarr démb nag si benn interview bu mu amaloon daan na di ci wax ne moom dafa am ay jafe-jafe si lu ci mel ni ay génnam ndaxte mu ngi dem bay xam ne ni su demee si ay hôpitaux dañuy daal di ko négliger comme si duñ ko ñemee laal loolu yëpp muy xam ne moom ak Sané li muy dund dafa war a jeex. ñu conti ñu continuer ak yenn bataille ak kii di Mouhamed Bilal Diatta nekk maire Kër Massar Sud moom nag ni ki démb daan nañ du ko placé sous mandat de dépôt ginnaaw bi nga xamee ne dañ ko convoqué woon li waral boobule. convocation yëpp dinañ si ñëwaat ak yenn si ay yaatal ñu daal di ba tey rek si mbirum sport di travaux yu ñu commencé si stade Demba Diop ni ki démb nag la yooyu les travaux daal di commencé ginnaaw bi nga xam ne ab jëye du màkk xewoon na fa le juillet 2017 ba tey ñu jeexale ko si wàllum sport rek di suñu gaynde yi ngeen xam ne war nañoo am ab jàkkaarloo équipe bi de Mozambique tey jile si 19 heures si yooyu la point yëpp dinañ si ñëwaat ak yéen waaye laata loolu ñu ñëw si point bu njëkk bi di suñuy élèves suñuy ndongo yi nga xam ne ni ki démb nag daal leen di def ab marche jógee parcelle ba fii di Walf nekk liberté 6 ñu gis ne ñoom élèves def lii ñun di yuuxu wàllu di seen camarade yi nga xam ne dañ leen jàpp kii di Daouda ak euh, Serigne Moutala Niass ñi nga xam ne dañ leen jàpp si boobu le jour nga xam ne amaloon nañu ak manifestation le di le 16 mars bi nga xam ne moom Ousmane Sonko da doon bu jàkkaarloo ak Mame Mbaye Niang si boobu le procès nit ñi nag doon amal ab manifestation élèves yi di xam ne nii ñooñu ñoom jotewuñu dara ak boobu les manifestations ndaxte se buntu kër lañ leen fekk jàpp leen ñuy demandé nag à ce que ñu libéré seen yooyu seen yooyu les camarades ndaxte dañoo war a amal lii di bag bi nga xam ne léegi mu ñëw di xamle tamit ne fii ak tànk bàyyiwuñu seen yooyu les seen na les naataangoo yi nga xam ne dañoo war a def bag comme ñoom ñoom élèves yi ñu xam ne ne duñu def duñu dugg benn yoon ci classe yi daal def cours tànk am ñu lu ñu bëgg buur xam naa dama lay bàyyi nga indi si loolu ay yaatal laataa ñuy continuer. waaw comme ni nga ko waxee soxna Asel ay ndongo daara la yoo xam ne eh, démb amal nañ ab euh, marche muy euh, manifestation boo xam ne ko tàmbalee comme ni nga ko waxee foofu la ca parcelle euh, dem ba fi nga xam ne eh, moom mooy liberté six foofu bi di seen i cas seen nga ko seen ñaar seen ngañ yoo xam ne dañ leen jàppoon ci nga xam ne manifestation yi. amoon na fi muy bésu procès Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang bi ñoom nag si lañ wax nee ñaar ñooñu leen mhm. bokkuñu sax ci li nga xam ne moom mooy euh, yooyu la manifestation ñu bu fekkee ci seen i kàddu la ñu sukkandiku ba tax nag ñuy sàkku euh, ñu bàyyi leen leneen nit euh, li li waral seen manifestation boobu ngir ñu bàyyi leen mooy ñu ne ay élèves lañ yoo xam ne kon da nga nekk en classe euh, d' examen muy euh, classe terminale ñu war a passé li nga xam ne kon moom mooy examen baccalauréat bi nga xam ne yàggatul mm-hmm. yi weer la ñetti weer mu jëmul mm-hmm. moom mooy ci des ah, ay gone lañ noonu lañ génnee daal manifester li nga xam ne peut-être kon euh, moyen boobu leen jàpp ne moom mooy mm-hmm. bi nga xam ne war nañ ko war nañ ko mën a war nañ ko mën a manifester génn waa indi solidarité diggante entre entre seen camarades gis nañ ne it manifester nañ te it euh, amul débordement dégguma ci débordement en tout cas. amul benn dox euh, nañ dem euh, ak ak ak li mel ay ndaw lañ daal comme dama gis ne comme loolu lañ jàpp ne. Mhm. peut-être loolu lañ mënaloon seen i morom seen mhm. yoo xam ne jàpp nañu leen peut-être autorité autorité yi nañ leen. Mhm. te ñoom it peut ñu demee ba am na dox ñu jàpp. ñàkkul ñàkkul it bu ñu defee enquête dem ba gis ne ñoom laalewuñu ak mbir mi dara. ñàkkul dinañ leen euh, bàyyi ñu dellu ci seen ay classe ngir mën a préparer kon li nga xam ne moom mooy examen baccalauréat waaw bu ñu ko mën doonee jàpp naa ne loolu mooy lu gën parce que bu ñu demee ba lii di ay élèves di wàcc si mbedd mi te seen place nekkoon si biir place yi ñu ne ñu wàcc si mbedd mi di xeexal seen i camarades yi nga xam ne jàpp nañ leen si li jàpp injustement ñoom élèves jàpp nañ leen jàpp ne seen camarades yooyu ñu jàpp fi ñu leen di teg mhm. jàpp ne war nañ a wëy parce que bu ñu déggee si ay élèves démb li ñu jot a wax retourné si yi jàng bi tant que bàyyi wuñu seen yooyu lee naataango ma di la jaajëfal ba tey xam naa dañu continuer rek ak suma assistance bi nga xam ne kii di le docteur Babacar Niang yoon daaloon na di ko teg loxo moom nag nit kii démb ñu ngi fësal benn photo bi nga xamante ne nii daal di ko posté si Facebook am di dalal xelu ñi nga xam ne mooy ay naataangoom si loolu tamit moom docteur Babacar Niang moom nag ginnaaw bi nga xamee ne démb interroger nañ si biir nga xam ne moom lañ ko jàppee di mbirum Ousmane Sonko ak kooku ñu doon taxal ay affaire néer bi ba nga xam ne dañ ko fi indee nag li ñuy xam ne mooy waa Ousmane dañ ko doon laaj ba xam ndax kooku lee moom dafa bokk si Pastef wala déet loolu la ñu xam ne loolu tamit bokk na si lu tax ñu daal koy teg loxo moom docteur Babacar Niang nag démb tontu na mu ne la Ousmane n'a posé aucun acte médical sur Sonko sa cela veut dire que ñoom waa Souma du ñoom ñoo doon faj di Ousmane Sonko waaye bu suñu xoolee kii di Ousmane Sonko gis nañu ne si biir Souma la doon fajoo kon bu ñu demee ko docteur Babacar Niang di weddi ne ñoom. ñoom personnel Souma du kenn si fàcc Ousmane Sonko Ousmane Sonko tamit si ay si ay leeral lu ñu déggee bu ñu dégloo bu àddina muy naan ay médecin moom moo ko faj loolu lañu jot a jàngal waaye nag question bu ñuy laajte mooy Ousmane Sonko lan moo tax mu dem suma ba pare am ay médecin am yoo xamante ne ni ko fay fekk di ko faj te ñii di waa suma nekk fa mënuñu koo laal xam naa ba te day ñëw si lu ñu doon waxtaanee rek mooy bu ñu waxee ne personnel bi kenn am woon accès si kii di Ousmane Sonko xam naa dama lay bàyyi nga am ay yaakaar yow si indi waaw foofu nga ko ci foofu sax laa koy laay laay njëkkee mooy euh, le fait que docteur Babacar Niang wax na ne ñoom clinique bi amaluñu am pàcc ki xam moom mooy Ousmane Sonko. Mm-hmm. wante précisé na ne dina am ay cas na mën na ay yoo xam ne. Mm-hmm. ay médecins indépendants indépendants euh, de la clinique. mën mm-hmm. nañu jël en charge ki nga xam ne kon moom mooy malade boobu faj ko peut être na am boobu. Euh, noonu la demee li nga xam ne nag euh, bees ci comme ni nga ko waxee garde à vue dañ ko prolongé garde à vue bi mm-hmm. waroon jeex kon tey ci ajuma ji dinañ ko prolongé kon euh, peut-être gën a nga xam ne moom mooy mbir mi gannaaw bi ñu koy jàppee ci mm-hmm. loolu nga ab boo xam ne famille Doudou Fall moom la mm-hmm. faatu ci mbiru manifestation yi ñu ne bañ ko fa doon yóbbu dañ ko doon laaj question ndax ci passé la ba bam déet wante foofu it ki nga xam ne mooy docteur Babacar Niang indi na ci indi na ci ay tontu parce que nee boo gisee ñu ko doon laaj loolu dafa am euh, li ñuy woowee prise en charge ñu ko am na prise en charge am déet kon moo taxoon ba yooyu les questions ñu ngi koy laaj mu ne loolu moo euh, ko mooy am na prise en charge am déet doon laaj ndax na dañ ko laaj ndax am na prise en charge am déet mm-hmm. mu ne leneen lu tax Euh, ñu ko doon laaj yi question euh, ndax Pastef la bokkam déet mm-hmm. moom mooy euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy ay médecin déet ñu nekk Pastef wala bokk ay médecin Ousmane Sonko am ñu ne ko mm-hmm. bu nga xam ne moom ay manifestant yu am gaañ-gaañ yu ko ko yëgal ñee xam ndax ñee xam ndax ces ñu nekk ak yéen mel ay information yu mel noonu tam mm-hmm. loolu tam indi na kon ba tax mu laaj ba tax mu laaj yi la yi la yi la question lu si mënti am daal fi mu nekk nii kii bi ñu ngi koy euh, li nga xam ne moom mooy euh, enquête bi ak yooyu peut être mu ngi wéy euh, fan yii ñu daal dinañ ci gën a am lu gën a leer waa ci boobu. Mm-hmm. jërëjëf boobu si yooyu lay yaakaar si loolu ba tey xam naa dañuy ñëw si mbirum manquement bi nga xam te ne ñu ngi koy gis ak weeru koor gi ni ñu gis ne su mel ni sucre dafa nekk loo xamante ne nii. dañuy am ay jafe-jafe pour gis ko kii di Ousmane Lom nag nekk responsable politique APR bu Richard Toll moom nag daana di si prononcé wu di si yëkkati ay kàddu di xam ne ne sukkër bi ñàkkul yenn ñàkk yooyu waaye dafa am ay euh, commerçant yi nga xamante jot nañ ci succursé daal di koy noot maanaam li ñu si jublu mooy daal di yokk ay prix wala li ñu mel loolu moo waral ñu daal di te boobu le sucre waaye moom mu ngi xam ne ne suukar ñàkkul te mu ngi woo état bi aussi à ce que mu def liggéeyam pour que commerçant yi mën a génni boobu le sucre bi nga xam ne daal na di manqué. Mhm. Euh, du suukar kese sax gis nga euh, loolu moom tàmm nañ. tàmm nañ ko Sénégal bi mm-hmm. événement bu jege see rek nga gis ay jaaykat yoo xam ne peut dañuy jël prix yi li nga xam ne moom mooy euh, yenn denrées yi di ko mm-hmm. di ko yokku ndax gis mm-hmm. nañu instant boobu demande bi day bëri dafa fekk am laa ko mën woowee pour daal jéem ci am bénéfice yoo xam ne day gën a bëri ba tax ba tax ñu koy yokk dégg nañ ko ci li nga xam ne moom mooy euh, suukar bi kooku it euh, muy lor moomu indi na am na ay leer yu jox wante it euh, fi mu faree fi mu bokk mën na am peut-être am benn euh, mën na am mu jeng parce que fi mu bokk tey affaire la bokk bu génnee wax loolu mën nañ ne dafa jeng wante li am solo ci li wax mooy nguur gi def liggéeyam. Mm-hmm. tey nguur gi na def liggéey bi nga xam ne moom moo war. ñu xool carrément lan moo waral euh, boobule suukar bi ñàkk parce que dégg nañ ko ñu koy euh, jàmbat ana lan moo waral kon suukar boobu ñàkk nguur gi nañ yoo xam ne bi ngir ngir ngir ngir ngir yokk ko ñu xool ana nan la def ba euh, ba mbir moom daal ñu jeexal ko ñu ñu leen si yoon bu fekkee ne suukar moo manqué fekkee CSS compagnie sucrière peut-être li mu dafa mënul. assurer li nga xam ne moom mooy demande bi état dam mhm. xool noonu la ñuy ubbee marché bi. waaw xanaa loolu dañ koy caytuwaat mais moom la mu ngi xam ne nii lu fi am na si sucre mën nañoo see wóor. ba waru ci sax ñu xam ne ni suukar su bëri am na fi mais comme ni nga ko waxee sànq rek yooyu les commerçants ñoo daal di ko téye ba démb sax bi ñu duggee si marché bi commerçant yi daal li ñuy wax mooy suukar am na waaye bu ñu demee si boutique mag yi ñu koy jëndee maanaam euh, bu ñu ko jaayaatee presque ñu si am dara te mënuñoo xëy rek yokk ko yokk ba xam te ne ñu koy jënd rek. waaw hmm. lu si mën di doon daal euh, ñu ngi daal def liggéeyam ñoom ñoo xam ne ñoom ñooy autorité daal war a saytu loolu. nañu xool parce que population baa ngay jàmbat kon ñooñu jël nañ jël seen nañ sol seen dàll. Mm-hmm. dem ci fi nga xam ne eh, foofu la foofu la nekk foofu la suukar bi di jógee. ñu xool mm-hmm. effectivement fan la problème bi situé. Mm-hmm. apporter ci ay solution quoi. d' accord pour jërëjëf si yooyu nga yaakaar ba tey ñu ñëw si mbirum kii di Adji Sarr ak Sonko. xam naa foofu dama lay bàyyi nga am tuuti lool ci développé rek ñu demee ba Adji Sarr mi nga xam ne. moo doon accusé kii di Ousmane Sonko mu taxaw mu situation muy dund mënatul euh, continuer ndaxte nit ñi dañ daw bu duggee sax si lu ni ay hôpitaux bi ko nangoo faj loolu ban jàngat nga nga si mën am tey. waaw réaction bi damay gis nga réaction bu réaction bu normale la peut-être nekk situation boo xam ne instant yi mhm. euh, situation bu métti la boobaag euh, léegi ndax nag. situation bi mu nekk nii neexul de maanaam nekk situation boo xam ne nii comme ni nga ko waxee rek mm-hmm. da ngay nekk mu ngi naan sax day obligé di toxu. Mm-hmm. ak euh, yi ni mel ci yenn structures yi. Mm-hmm. ñu koy daw. ak yi ni parce que ñi ah, ñi daw ñoo yee daw de ñi daw moom ñoo yee daw xam nga mm, problème bu rëy boobu nekk ci suba nga xam ne fukki nit ak ñeent ñàkk nañ seen bakkan. te fi mu nekk nii problème bi c'est pendant en justice. kenn xamul li jot euh, ñu si jot ñàkk fan lay mujjee kenn mhm. xamul mbir fi mujjee moom sax mu ngi naan euh, est-ce que justice dinañu est-ce dina capable régler affaire mu ngi naan ay manque de responsabilité gars yi jëluñ seen responsabilité mhm. ak yi ni mel en tout cas ku nekk situation boo xam ne daal benn situation d'inconfortabilité la ndax mu ngi naan ndaw la euh, war na doxi soxlaam war mhm. ak Eh, ak yi mel eh, nekk na daal eh, mbir moo xam ne soxna seen mbir mu doy waar la te ak léegi dafa dem dafa dem daal ba yenn ba ba xel parce que donte moom mm-hmm. boo xoolee maanaam mu tëddee boobu ak léegi ak si jot ak yooyu mm-hmm. benn lecture monsieur Mawar mais euh, ci dem boobu est ce que nekk ci dem boobu euh, si am am si waaw ba si am am si ba li mbir mu doy waar la. Mhm. loo xam ne lu doy waar la te comme ni ko Adji Sarr waxee rek. Euh, mhm. justice xam nga justice justice dafa yàgg xam nga Adji Sarr naan. procès bi instant yi moom. ba mu demee chambre criminelle la ci gëj am li nga xam ne moom mooy information justice nag mooy doxee noonu. gisoon ne dafa xaw a lu tuuti la fekk Adji Sarr ay ko moment bi doon di wax. de jafe-jafe yi nga xamante ne mu ngi koy dund parce que loolu d'après bu ñu doon dégg ñeneen yi nga xamante ni dañ ko xam ku si mel ni euh, Californie ak ñeneen dañ doon Adji euh, bi doon di wax jafe-jafe bi muy loolu gisoo ni dafa xaw a tuuti. waaw loolu ñeneen mën nañ am lecture boobu nga am lecture boobu man man gisuma ci. lecture boobu donc contexte bi mu ko defee nag waa wax nga beneen contexte ay manifestation amaat na fii mm-hmm. Ousmane Sonko mu ngi am beneen procès ki nga xam ne moom mooy Mame Mbaye Niang moom Adji Sarr sax mu ngi naan bu dee procès en diffamation bi mhm. gars yi jëluñ ci attewuñu ko moom dina jël décision mhm. comme parce que peut-être jàpp na ne kon bu fekkee procès bi attewuñu ko rek mën naa moom procès nit mhm. euh, ak euh, ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko peut-être euh, kenn du ko attee loo xam ne wala boo kenn du xam kañ la koy attee ba tax mu naan bu ñu attewul li nga xam ne mooy procès en diffamation Ousmane Sonko Mame dina jël li nga xam ne moom mooy décision ana ba décision nag euh, la nar a jël. Mhm. Euh, loolu peut-être ñu euh, ñàkk fan yi ñu jëm dinañ ci dinañ ci dinañ ci am lu leer. dinañ ci am lu leer jërëjëf bu di fàttali ba tey nii dernièrement bu mujjee entretien bu mujjee am lobsu la ko amaloon mooy si sujet bu ñu doon waxtaan ba tey. xam naa dañuy jàll rek si kii di meeru Kër Massar Sud nekk Mouhamed Bilal. Diatta mi nga xam ko placé woon en garde à vue jamono ji ñuy wax ak yéen nag dañ dafa nekk sous mandat de dépôt ndaxte ñu ngi koy toppee wàllum offense envers le chef de l' état maanaam ay kàddu yi nga xam ne jot na koo yëkkati teg ko ci kii di njiitalu réew mi xam nga lay bàyyi nga indi côté boobu ay yaatal laata ñuy continuer. waaw comme ni nga waxee Mouhamed Bilal Diatta di meeru Kër Massar Sud bokkit ci Pastef loolu it euh, day am solo ñu ko ciy leeral ñu xam ne Pastef la bokk. Euh, gannaaw bi nga xamee ne ni nga waxee convoqué woon nañ ko gendarmerie. placé ko en garde à vue li nga xam ne nag moo ci mujj mooy démb def nañ ko mandat de dépôt maanaam yóbbu nañ ko kaso. Mhm. démb fanaan na li nga xam ne moom mooy euh, kaso li ñu ko jàppee nag wax nga ko. Euh, atteinte à la sûreté de l' état gannaaw ay kàddu yoo xam ne yëkkati woon na ko nag. Mhm. dafa am ay kàddu yoo xam ne peut-être daf ko yëkkati woon euh, di woote a la résistance. Euh, ak mhm. yi ni mel loolu nag tax kon ba ñu woolu woon ko bi nga ko wooloo nag comme ni ma ko waxee à part convocation boobu ak déglu bi dañ ko yóbbu li nga xam ne moom mooy kaso. ñu mhm. bëri nag dañ ci gis ne maanaam nguur gi singili bi muy singili. Euh, li nga xam ne moom mooy Pastef euh, moom la ñuy wéyal am na ñoo xam ne gis boobu lañ ci am am dañoo gis ne daal def loo xam ne jar na ñu woolu ko daa def loo xam ne jar na ñu teg ko loxo ñu teg ko loxo en tout cas daal euh, li ma si mën a daal mooy jàpp yenn discours jàpp yu bëri yi nga xam ne ñu koy jàpp nekkul loo xam ne dina apaiser li nga xam ne moom mooy tension sociale bi nga xam ne ñu koy ñemeeku suñu réew fan yi yëpp soxna jërëjëf Bour laataa ñuy euh, tëj ak sport bi rek dafa am benn sujet boo xam ne dinañ ci waxtaan tuuti parce que gis nañu léegi ci weeru koor gi jeunes dañuy am tendance di jug guddi gi di yeete ak ay mbiru yoo xamante ne nii dafa doy waar ñii nag am na ñoo xamante ni apprécié nañ ko ndaxte nañ leen yee tout comme ñeneen tamit am nañ ci yeneen euh, jàngat ci loolu xam naa dama lay bàyyi rek nga am loolu ci indi laataa ñuy continuer ak mbirum sport bi. waaw a Assa loolu de man jàngat ma ci am daal mooy loolu amul benn njëriñ man daal loolu gisuma ci gisuma si njëriñ quoi. bu hmm. dul daal tànqal nit ñi. Hmm. non man man man sax dama que ñu koy def ñoom dañuy liggéey wala dañuy xëy jàng hmm. ndax yow loo xam ne jàmbaar ay 4 heures jàpp 5 heures du matin nga jóg yor say bool ak say tamaak yu ngeen xamul weñ di tëgg di tànqal nit ñi rang rang dañuy tiital sax xale ah non d'ailleurs man benn jour def nañ ko sama doom sama tuut bi dafa tiit dafa jóg di yóbbu. waaw ah, hmm. xam loolu pour man daal pour man loolu daal lu amul benn njëriñ te it euh, bi ma laajtee ki nga xam ne laajte naa ci koo xam ne peut-être euh, nit yi la affaire demee noonu hmm. wala boog euh, en tout imam la. Hmm. mais li ma ci wax mooy loolu daal gisul fondement ci ci ci islam maanaam gis nga fondement ci islam gisu ko. d'abord kon bu fekkee amul fondement ci islam te it man gisuma utilité am. dans la mesure où dañ ko ñooñu dañ ko war a dakkal man sax dama naan ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom ñooy police police dañoo war bu ñu koy jàpp ñu ramasse na jàpp leen. cawale leen cawale leen bi nga def loolu amul njëriñ soxna si man loolu gisuma ci njëriñ wax dëgg yàlla yow tey maanaam biir kër biir kër. mais loolu boo seetloo du yàgg benn 15 minutes 30 minutes. non sax soxna 5 minutes sax benn biir bi di la kii loolu loolu c'est gênant même bu doon benn 5 minutes. maanaam li tax ma ne amul njëriñ li tax amul njëriñ te bruit bruit inutile la pollution sonore la. Mhm. li tax amul njëriñ euh, moom mooy tey ci biir kër ci biir kër. Mhm. biir kër gi faaw am kenn ku faw faaw dina am ci biir kër gi ku yeewu yee ñeneen ñi. Mhm. tey maanaam technologie toll foo xam ne bu doon bu doon sax jamono yi mbaa bu jógee rek nga doon def foo xam ne. sa portable da nga koy def réveil heure la neexee mu yee la. biir kër ñëpp mënuñ nelawandoo bi tëdd a ba ngeen mënuñ yeesu borom xëdd mënul nekk soxna askan te it ilimaan baa ngi ci koñ bi dina nodd soit di nga noonu ilimaan bi soit kenn dina jóg si biir kër gi yee ñi nga xam ne ñoo ci ñoom ñoo ci des euh, comme ñoo euh, sa réveil yee la soit nga mu yee la kon nag léeg-léeg amul pour man amul benn utilité beneen mbir beneen aspect bi tax ñu war koo bàyyi mhm. euh, muy position sonore am ñoo xam ne soxna seen Euh, dañuy liggéey guddi wala dañuy liggéey dañuy liggéey guddi. dañuy liggéey guddi maanaam ci fajar bi noonu la ñuy wàcc. pour mm-hmm. ñibbi si. Mm-hmm. war a dallu ñooñu dañ leen war a bàyyi xel am na yoo xam ne dañoo feebar. Mm-hmm. te seen feebar ñu war a nekk ñu am benn quiétude ñu war a am benn calme imaginer tam ñooñu bëri woo ba naan une quinzaine de minutes wala comme ñu di rang rang rang di di di di gêner. dañuy romb rek. ñu romb moom ñu romb sax ñu romb parce que buñ jógee si koñ war a rombaat si koñ durée boobu yëpp ñoo di nga dégg kii ba maximum benn une minute wala loolu nga di ngeen dinañ nekk di la tànqal ak ay. Mm-hmm. di la tànqal ay ak ak ay bruit quoi. Mm-hmm. beneen bi taxit ñu war a bàyyi loolu moom mooy ñun ñëpp di ay jullit dañoo dëkk ak ñoo xam ne beneen diine lañ. Mm-hmm. ñooñu dañ leen a respecté. man daal euh, considérant aspect yooyu wax yëpp. gis naa daal loo xam ne lu ñu lu ñu war a bàyyi la daal man gisuma ci benn njëriñ wax dëgg yàlla. maa ngi wax daal ñi nga xam ne ñoom ñooy ñoom ñooy kii. police bu ko bu ñu ko defaree nañ leen ramas nañ leen jàpp di leen caw ndax ñu bàyyi nii parce que moom tànkalaate la rek. ah li ci mënti am rek nañ jàpp ne loolu yow sa position la. te comme am na ñeneen. non ñu bëri la position boobu lañ yore ñu bëri lañ leen di tànkal ñu bëri gisuñ ci benn njëriñ. Mm-hmm. parce que tànkal bi ñu leen di tànkal. rang rang rang yow bu doon loolu sax peut être waaw doon naa comprendre benn nit benn nit dafa baax maanaam benn nit. Mm-hmm. ñëw taxaw ñu. si avant loolu lañ daan gis. voilà ñu leen waaj waaj jot na. jàmm kenn nit rek nga jóg leen waaj loolu sax peut être ñu comprendre mais yow boo xam ne nii ay bool la ñuy yor ay ay ay weñ ay kubéeru cëram yi dafa ñuy gis. finalement loolu ça c'est du n'importe quoi quoi mais nekkatul woote boo xam ne yow peut-être yàlla nga ciy wut pour woo nit ñi. pour ñu pour ñu pour ñu pour ñu jóg sa dëkk. waaw pour euh, comme ni ko waxee rek loolu yow euh, sa position boobu nga ci am comme ni ko waxee tamit ñu bëri am nañ ci boobu les positions. Euh, reste reste à voir dafa nekk mbir boo ni ko dinañ ko toppaat ba tey rek xam naa dañuy continuer ak euh, wàllum sport laata ñuy tëj yor yor bi si loolu tamit gis nañ ne li di stade Demba Diop ginnaaw ba mu amee woon ak jéyal bi fa xewoon le 15 juillet 2017 ginnaaw loolu gis nañu ne démb nag lañu commencé di ko defaraat si defaraat boobu ñu ngi siy compter lu tolloo ak 5 milliards ñu gis ne programme programme FIFA wat ñoo daal di débloqué lu tolloog 3 milliards daal di ci def ñu gis ne euh, FIFA tamit daana di ci def lu tolloo ak 2 euh, milliards si boobu lay stade bi nga xam ne lu métti xewoon na fa le 15 juillet 2017 si boobu lay defaraat xam naa ne lay bàyyi nga am loo ci indi rek laataa ñu waaw soxna Sall comme ni nga ko waxee stade Demba Diop dafa nekk stade bu am solo euh, ci Dakar surtout ci li nga xam ne moom mooy football local bi. parce que booy mhm. xool match yu bëri yu football euh, local bi dañ ko doon joué foofu la ci stade mhm. léegi nag ñu tëj ko euh, ndax jiyee jooju amoon fa comme ni ko waxee ba ay nit ñàkkoon ci seen bakkan muy mbir mu diisoon. Mhm. di ko war koo defaraat nag léegi liggéeyu defaraat yooyu moom mooy tàmbale démb ci alxames ji comme ni ko waxee def nañ ci yooyu la. koppar euh, damay dikkaat rek ci importance bi nga xam ne kon am na ko en plus de accessible nekk na zone boo xam ne c'est accessible maanaam tey nekk na benn ci foo xam ne ci Dakar accessible na peut-être tey boo koy méngalee par rapport ak euh, stade euh, bu suñu stade bu bees bi mu nekk tam ci benn moment boo xam ne stade les constellations tam ñu ngi koy defaraat. Mhm. finalement football local dañoo nekk si dañoo nekk sax ci problème. boo mhm. xoolee football local dañoo nekk si problème ndax manque de stade nga xam ne. am nañ ko en plus stade Demba Diop it euh, ci côté moo gën a yomb it ci wàllum wàllum njëkk wàllum prix. Mm. te boo ko méngalee ak stade bi nga xam ne mooy stade Abdoulaye Wade moo gën a cher foofu. kon mm. en plus de accessibilité boobu nga xam ne am na ko ci ku bëgg a jóg dem fa ci wàllum prix it euh, lii di stade lii di stade Demba Diop euh, daf koo daf daf daf koo gën a yombale. Euh, kon it tey ni ñu ko defaraatee euh, dina nekk loo xam ne yaakaar naa yaakaar naa ci at la ñoo xamante travaux yi a nekk benn soulagement pour ñi nga xam ne euh, moom mooy football local bi surtout mais it le fait que ñu koy defaraat it di defaraat beneen stade stade amitié bi ak stade Abdoulaye bi ñu am. lu ñu si yokkaat rek dina mën a tax xanaa sax ñu njort ne Sénégal ak yiraat li nga xam ne moom mooy coupe coupe d'Afrique gannaaw bi ko ko gëjee amal. 1992 ba léegi. Mm-hmm. jërëjëf bopp si yooyu nga yaatal xam naa ba tey euh, ñu jàll si sport rek daal di mooy match euh, bi nga xam ne ñu gaynde yi dinañ ko amal ak équipe bi di Mozambique tey jilee si 19h mu nekk troisième journée des éliminatoires de la CAN 2023 si loolu tamit ñu gis ne Aliou Cissé comme ni mu koy defee saa su nekk moom entraîneur bi daal na gis si. yëkkati ay euh, kàddu rek di naan euh, li ñu kàddoom li ci gën a fës comme ni mu koy defee saa su nekk muy le respect vers l'adversaire ñu gis ci kii di Kalidou Koulibaly moom nag muy xamle ne dañoo war a gagné ngir bëggal sénégalais yi ndaxte lu toll ni ñu fekk sañu si loolu tamit dañoo war a bëggal yooyu les supporters yi nga xamante ne nii mooy sénégalais yi en tant que ñu nekk seen biir seen biir réew ñu fekk si ñu loolu mbégte lay doon si ñoom. kii di Pape Gueye tamit remarqué nañ ne dañoo daal di ko forte ndaxte dafa am ay blessures yu muy jànkonteel si loolu tamit euh, xam naa dama lay bàyyi indi si ay yaatal rek laata ñuy tëj si yor-yor bi buur. waaw euh, double confrontation la ñu nag euh, Mozambique première bi mooy match aller bi ba suba tey jii la war am comme ni ko waxee 19 heures ci fële stade Abdoulaye Wade bu jam hmm. ñaajo ndam nag da ci am solo moom ndax ndam da ci hmm. am solo ndam dina ci am solo non seulement pour bëggeel supporters yi wante it pour gën euh, dëgëral taxawaay bi hmm. ak gën am confiance jëm ci li nga xam ne moom mooy euh, CAN 2023 bi comme ni nga ko waxee équipe bi daanaka effectif bi c'est au complet euh, à Pape Gueye mi nga xam ne kon gaañu gaañu la am uh, ba forfait yeneen joueurs yëpp ñu fi retour Sadio Mané ñu ngi koy xaaraat ñi nga xam ne Sénégalais yi namoon nañ ko lool. Uh, mhm. ñi fas yéene kon uh, bésub tey bii di ko xaar mu defeti mu defeti li nga xam ne moom mooy Medina mu mhm. régalé ñu ci football bi nga xam ne car macha allah. Mhm. mën na ko ndam da ci am solo yéen ñaanal gaynde kon ñu am si ndam. Euh, loolu dina tax ba dinañ gën a am confiance ngir mm-hmm. ñu fekkee nga xam ne ñoom ñooy waa Mozambique seen dëkkit euh, mm-hmm. bu ñu xasee ba fii ndam boobu ñu demee dañ koy gérer rek. Euh, mm-hmm. boo xool ñu ciy génne. ñu gis ne ñoom équipe bu Mozambique ñoom tamit ñu ngi def ay lu si mel dañuy kaas daal maanaam. effectivement dina ñëw si condition yu baax que terrain bu ñu jox pour ñu entraîner ñu gis ne seen coach yooyu ñu ngi koy kaas ndaxte muy xam ne ne. joueurs yi fa nekk yëpp si ay club la nekk te mm-hmm. miin nañu genre stade bi nga doon est ce que loolu tamit duñu renvoyer à ce que li ñu ngi ko doon waxtaanee sànq ni le fait que ñuy defaraat ay stade fii Sénégal su mel ni stade Demba Diop ak effectivement euh, war nañu defaraat stade yi ak yeneen mais nag loolu yàgg nañ koo gis si football yàgg nañu gis si mm-hmm. football maanaam dëkk boo xam ne man adversaire bi nga ko dalalee. Mm-hmm. lu si bëri da ngay gis ne il faut mu kaas. il faut mu voilà gis nga syndicat bi foog ñu ne waaw hôtel lii wala stade bi nii condition yi nii loolu nañ koo gis li nga xam ne ci li nga xam ne moom mooy moom mooy football euh, d'autant plus que tam ñu ngi naan li nga xam ne ñoom ñooy Sénégal ñoo gën a puissant xaw ma équipe bi nangam nangam même adversaire moom dans tous les cas sa adversaire da nga ko respecté mm-hmm. te it euh, loolu ñuy kaas it bu dee lu légitime la it ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, dirigeant ñooy fédération bi. Mhm. war nañ cee bàyyi xel bu baax a baax conditions yi nga xam ne teg nañ ci waa Sénégal bu ñu woowee keneen nit mu ñëw léegi mhm. jëm teg ci condition yi ndax it yow da nga leen dalal ba ëllëg di nga leen fekki. di nga leen fekki boo leen defee boo leen defee nga dem seen dëkk. ñu nga xam ne loolu day def quoi comme yooyu yëpp lu lu jar waaye mbirum fay moom jàpp naa ni Sénégal a wóor. ah waaw bu doon moom la ñu njëkk a moom dina fay police la loolu waa ISRA du xam ne ci dara loolu la ñuy tooñ. jërëjëf pour si loolu xam naa dama ba ginnaaw ëllëg incha di la jaajëfal bu baax ba léegi sax ne saa su ne Euh, ñu ngi suivre suñu plateforme yi <laughs> suñu site bi seneinfo point net chaîne YouTube bi seneinfo international ñu ngi it ci euh, Twitter euh, Facebook foofu yëpp rek ku bëgg a topp seneinfo rek kon boo fa demee. Mm. di ngi topp di jaajëfale suñu cadre bi Abdel dañ jox di daje continuer comme ni nga. continuer incha allah jërë ngeen jëf jërëjëf Bour jërëjëf Abdel suñu cadre. jaajëfal également internautes yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi doon suivre à travers suñuy plateforme seneinfo point net seneinfo international di leen jox dig daje ginnaaw euh, di leen jox dig daje altine incha allah jërë ngeen jëf juma mubarak. Restez toujours informés sur SeneInfo xibaar yu wóor te leer ci bile jamono

xibaar yu wóor te leer ci biir jamono